di faté abonné ci suñu chaîne bés cloche de notification bi ngir am bép vidéo bo xamni duggal nañ ko Cayar 24 vidéo yu am solo la ñuy def kum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi monsieur le maire ak ñi nga xam te ne lañ fekk muy wa collectif bi di leen remercier bu baaxa baax ci kàddu yi nga xam ne jot nañ ko fee yëkkati di nuyu aussi Ibrahima di nuyu aussi ki ñu andal muy suñu secrétaire di madame Diop di nuyu étudiants yi bu baax aussi presse surtout parce que lépp loo xam te ne tey mi ngi jàll ci réew mi ba nit ñi xam muy xam muy ñaar rek ma wala kafaroo xëy na ñoom ko ko ba mu heureusement xëy ñi ma fekk ñoom ci luy doxal ak luy donc di leen sant bu baax di à chaque fois danuy gis engagement ak détermination bi nga xam te ni a chaque fois mu lay wane ci bëgg Kayar amul leen loo ko wax lu dul xëy na boo ko waxee sax yeneen projet danaa d'accord d'accord baax na waaye kayaar d'abord moo ko ñor te njiit boo mën di gis ci àdduna li muy soxla mooy population boo xam te ni ay jeunes lan ay ndaw lan taxaw pour soutenir ko wala am benn staff muy équipe bu am solo ku ci mel ni Ibrahima njiit nag ñooñu lay soxla bu amee ñu mel noonu wala ñi nga xam te ne ñoo taxaw seen collectif ngir xex ngir kayar mëna jëm kanam donc njiit koo xam te ne am donc likoy koy du bari té mom heureusement comprendre na enjeu wu Kayaar xam na ni kayar commune bu attractif la ñepp fi leen bëgg jëm ci amul fenn fo xam te ci réew mi wala bitum réew té do dégg xëy kayar ndax li fiy feeñ ak la projet ya fa war am donc mom comprendre na lolu ba lepp lo xam te mi ngi koy yëkëti danaan nan lay def ba kayar bénéficier ci ba ki démb ci mujj ministre de la femme ma ngay def ay démarches pour xool nan lay mën a jàppalee jigéen ñi kon bu jàppalee jigéen ñi jàppale collectif yi ñëw ni étudiants yi laay jàppale kon kooku kat dañ koy jaajëfal bu baax a baax te suma sonn yéen ñëpp ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax waaw ndaxte ndaxte lii yombul njiit du leng lu dul nan ngay def ba mën a ñoŋal saw askan nan ngay def ba taxaw sa population ci tey jii ci loolu la nekk ndax bursi yi du ñëpp ñoo daan am bu njëkk ñëpp xam nañ ni ministère yi ñoo daan yor di xool nuñ koy séddale seen biir maire yi amuñ ci woon accès mais biñ ko ko waxee moom tamit ci bëggam mu ciy débale ko xaalis bu bari bu am solo bo xam ne du bëgg ñu tudd ko fii xëy mu nekk lu am solo lo xam ne da koy yëkkati di ko jàppale étudiants yi boo koy xamul ne étudiants yi sama njaboot lan samay doom lan ñii samay jarbaat lan ñii samay sët lan kon loolu du leen dul ak bëgg ak bëgg taxaw sa askan kon maire ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci taxawaay boobu nga xam te ne am nga ko sa local beneen bi fi nga xam ni nag fa laay jeexalee xëy na muy ci côté bourse yi amoon ngeen daaw 50 yu ñu leen joxoon yàlla dogal ngeen dépassé ko largement damaa mujj ne ah comme que kayaar la ci maire dafa baax ah lu ñëw naa jàllal rek <laughs> ñu xool nuñ ci jàppe waaye ren yàlla dogal na aussi ngeen amaat 50 amaat yeneen 30 yoo xam te ni Thiès gi ngeen koy defee une formation courte durée envoyé à Ibrahima d'ailleurs formation filière yi nga xam ne mën ngeen ko def audiovisuel voilà informatique bureautique et tout donc transformation des fruits et légumes yooyu yëpp mën ngeen ko faa def mois la amul sax looy fay Pour mon formation gratuite la amul sax inscription d'ailleurs pour ñi nga xam ne bon peut-être tantôt, ils n'ont pas eu l'examen amuñu examen moo xam CM2 sax boo fa yemee mën ngaa def formation bi pâtisserie plâtrier yëpp a ngi donc après bon gisee Ibrahima restauration yëpp nga fa te après boo ci génnee diplôme d'état ngay am parce que école bi c'est reconnu par l'état c'est am di kon yooyu yaakaar naa ni chance la li ci topp mooy xëy na Dakar la te bu dee Dakar ñu ci bari ñu ngi doon dem INSHIP te INSHIP aussi nekkaat na Thiès te foofu inscription bi ngay fay li ci des lépp maire moo ko jël en charge xam ngeen loolu c'est pas gratuit nga ñëw war a tey fay ay 900000 wala ay 800000 maire ni la fayal inscription li ci des lépp maa ko jël en charge loolu du lu ndaw ci 50 étudiants boo defee sommation bi bu deen 500000 kese ci 50 étudiants kenn xamul lu mu donc loolu lépp mu te du ci wax dara ndax dara ko lul askanam bëgg étudiants yi xam ne yor am réew ëllëg ñii nga xam te ñoom dégg ñu ministre député mais fan lañ jaar danoo jàng te maire aussi xam une vision prophétique ci politique bi xam nañ tey ji li nga xam pour ña ko cay remplacer wala mu man leen a gëtëng pour ëllëg ñuy jàppale aw askanam du leen lu jul yéen étudiants yi yéenay mën a jàng ba taxaw ko fa ëllëg donc yaakaar naa ni loolu aussi vision la boo xam te ni faaw ñu sant la ci ci gërëm ci investissement bu am solo bi ngay def ci étudiants yi fi ñu jeexal nag message lay doon muy ñu koy jox suñu bopp di ko jox aussi jeunesse bi ndaw ñi ndaxte fu mu mën di nekk xëy na ñu ñuy suivre ci réseaux sociaux yi dinañu gis ñu ñuy woowee l' ambassadeur de la jeunesse moo xam euh, tout récemment ñu ngi woon TFM donc loolu loolu moo ñu fa yóbboon ci xool nan la ni taxawoo jeunesse bi partout au Sénégal on a eu la chance de faire les 46 départements par le biais du PSE di dox à chaque fois xool nan la ñuy jàppalee jeunesse bi mais gis nañ ni Sénégal am nañ chance am benn jeunesse boo xam te ni dañuy dañuy dañuy soucier ci développement wu réew mi ci doxalinu réew mi nga gis ñu am pas-pas am yéene ci réew mi waaye ñooñu dama leen xamal ni foofu ñu teg seen tànk bu ñu fa mos a jóge foofu la ndax am réew li koy doxal mooy ay ndaw am réew li koy doxal mooy pas-pas ak bëgg ak bi nga xam te ne tey am ñii nga gis tey ji ñuy gérer ay ministère rek di wala ñu gérer ay wala ñuy nekk ay directeurs généraux ëpplew ñu dara bu dee njàng mi ñu ñoom rek ñooy tolloo fii ñu yegg ñoom pas-pas ak bëgg moo leen ko may kon ñun bu mus a des ginnaaw bu mus a bàyyi nan gëm suñu bopp xam fi ni teg suñu tànk surtout ndaxte bu nu ragal aussi li sëñ sàmbay di wax nee na àdduna moom xeex la waaw lii tax nag la nga xam te ne bëgg nga ko nga jot ca faaw nga ten bañ a tiit waaw te ni kenn ku ci nekk ci àdduna man mom lay faral di wax ne m'arrive ora ce que la aura prescrit lu lenn loo xam te borom dogalu ko caw wala bindu ko caw dal, kon bu nu tiit bu nu ragal nan takku gën a bu baax baax xam aussi ndaw moi doxam réew parce que beaucoup xoolee population bien am on a une population très jeune 75 on a voilà de la population c'est voilà c'est jeune donc on a une population très jeune donc loolu aussi jeunesse beaucoup nga xam moi ni mooy motooru lépp ci àdduna ndax tey ji maire mag yu ci bari xëy pour mu def ko faaw tey ji ñun ñooy mën a engagé wu ñëw ay projet étudiants aussi li ma leen lancé moi, il faut une def activités yu mais activités il faut des activités purement citoyennes ay set satal ay balai ay nettoyage ay organiser ay séminaires yo non à la violence respect des droits de l'homme donc faut ngeen affaire yi aussi accompagner les collectifs qui sont là parce que ils n'ont pas cette volume d'informations que vous accédez aujourd'hui vous êtes à Dakar vous êtes bien informés, bien nutrés. mais il faudra les accompagner parce que ñoom tey lii ñuy dox kenn ku ci nekk ci yéen am nga ci mag wala nga am ci rakk wala nga am ci tantaak wala yaay donc yéen aussi yéen ay mën a takku dooleel leen ci combat boobu ñuy dox donc duñ bañ dañuy bañ a guddal rek pour ne pas monopoliser la parole génn nañ xaw buy bi tuuti mais ñu ngi sant bu baax di leen gërëm sa tur ak sant di njëkk a nuyoo mi di ko teg si loxo monsieur le maire mu jàllale ko ak sunu partenaire bi nga xam ni mooy Matar sant bu baax Ibrahima Gueye mi nga xamante ni peut-être moom tamit moom mooy suñu tuteur les étudiants bu baax ndax nit ki moom vraiment moom euh, boo nekkee comme li ñuy wax rek ni boo nekkee ndaw moom si euh, si dëkk moom maam bu laaj maam tey jii nii dëkk bi loolu la defal mais plutôt yow loo defal dëkk bi te loolu moom vraiment moom mu ngi koy xool ñun amuñu loo xamante ne doon koy ragal loo xamante ni euh, gis nañ ko si kaa loo xamante ne doon koy ragal parce que ñun ay étudiant lan te am nañ futur boo xamante ni ëllëg si biir incha allahu

même boo demee si kër sax bu amul éducation du dox kon nag maire seetaanu si loolu ak mooy Ibrahima Gueye tout la municipalité ñu ngi si gërëm bu baax a baax a baax ak kii étudiants yëpp di gërëm tam suñu partenaire boo xamante ne daaw tamit comme li mu ko waxoon mooy naan 50 bus am na ñoo xamante man maa ko yóbbuwoon ba sa cabinet fi nga nekkoon may jotumaa dugg parce que booba dama doon dama doon am cours ma yóbbu leen ba foofu bàyyi leen te ñoom danoo bénéficié wu tey jii ren la seen deuxième année ñun ñi même mi man mii di wax ak yow nii damaa bénéficier aussi bourse yi laa bénéficier instant il maa ngi sama troisième euh, année en économie gestion des entreprises ICAS yi Amadou Matam boobu te loolu monsieur le maire mii moom boursier, yooyu moo nu ko may di wax tamit ci cadre étudiant parce que Kayar dafa mel ni euh, maam peut-être amna na ñoo xamante xamuñu ba xam Kayar am nay cadre wala amna na ñoo xamante ay étudiants yi mag lan wala amna na ñoo xamante faneen boo génnee dañ leen respecté parce que ay étudiants lan ba tey xamuñu ko parce que Kayar am na ay cadre am na étudiant bu doon tey jii nii ku nekk am nga sa licence wala sa diplôme ñu ñëw fii nii Kayar si Kébé ne ñu defaloo ñi ñuy xam nii ni dinañ bu ñuy génne Kayar dinañ génne ay intellectuels yu bëree bëree bëri mais doxewuñu ko waxewuñu ko pour lan maam boo nekkee si dékkul léegu daa am nun lay yaare maam à tout moment daa am loo xamante ne nu koy éduquer ba bu ñuy wax ak nit ki sax daa loo xamante ne nu koy jox respect bu baax a baax même monsieur le maire nii ba tey boobu ba léegi ñu wax ay waxu diplomatie parce que dañuy am problème parce que problème mënut a ñaax si ànd des fois dañuy am ay retard mais boo nekkee étudiant da nga xam ne des fois trésor du am xaalis du am xaalis par force retard day am mais euh, gars bu la defee pression faaw nga tamit nga def pression pour ma am tey jii nii euh, comme moom utal nañu euh, su ma juumee ren ñoo ngi si quatre appartement Dakar am na fi deux appartements

loolu day koy récompense incha allah dina am cadre buy ñëw si Kayar bu ëllëgee étudiants yi nga doon kii yëpp dina gis ñu nekk mais nga ne ah lii sama fierté la parce que kii jàng ba nii de maa xamay bourse wala kii jàng ba lii nii tey jii ni Matar wala ki nekk président wala ministre Kayar la doomu kayaar la te loolu suñu sag la pourquoi pas pourquoi pas parce que ñun vision pourquoi pas comme que am pétrole gaz yi nekk fii sensibiliser les élèves parce que pétrole gaz il faut orienter les formations si les ressources ressources humaines comme pétrole gaz pour ñu jëm parce que see étudiants yi wala élèves dañ see war a nga xam ni tey jii nii boo ëllëgee ñoom mën nañ see diriger benn part boo xam ne bu am solo la di wax monsieur kii monsieur le maire tamit ak ci cadre yi ñi fi ne l'APS 153 boobu noonu sànq damaa dégg eh, histoire bi nii sama yaram daw parce que yii boo koy jàng yëpp dal loo koy jàngal parce que ku nekk daa am loo xamante ni te étudiants yi am nañ ñoo xamante ni ay avocat la loolu noonu bu jaaroon si loxoy étudiants yi wallaahi du du yëg sax fii seen indemnité dañ leen koy fay te lii c'est pas normal chaque jour ma ko nag ñu ni usine bi nangam ak nangam wala nangam mais tey jii dama bëgg nga xam ne étudiants yi ñoom tam ci Kayar lan bokk étudiants yi ci Kayar lan bokk te étudiants yi boo xoolee seen i raq lan ñenn ñi sax am nañ ay yaay yoo xamante ne liggéey ci usines yi kon boo leen amee problème tamit comme li monsieur le maire wax mbooloo mooy doole il faut ngeen def benn association benn kii boo xamante ni tous les travailleurs. yoo xamante ngeen fene si usines yi boo mu bañee boo leen amee te loo lu leen métti wala yoon ñun boo leen nu waxee rek baa ñu ngeen bindu ñu lettre incha allah dina àgg fa mu war a àgg dina ñëw taxaw leen bu jaree tamit parce que ñoom ku jàng leen mën a waxal ku am ay diplôme des fois dina la jox contrat yoo xamante ne nit wota kii def si usine trois mois 6 mois jàng te amul contrat saamu doon CDD wala CDI loolu noonu faaw ngeen xam ko boo la ñëwoon nii di ngeen rapproché dina leen expliquer yu bëree bëri si wàllum liggéey ak yooyu noonu parce que c'est normal parce que ñun li ñu am wala li ñuy def nii pour yéen la pour ëllëgee boo amee problème ñun ñu taxaw fii étudiants yi taxaw pour yéen pour kii combattre leen pour yéen ñoo ngi jéegoon nag peut-être nag euh, réeroo amul mais ñàkk waxtaan ñoo am da ngeen a xamul woon moo tax quoi mais ñun woon mais xam naa incha allah dinañ si gën a yaata ba saa boo leen amatee problème ñun tam ñu ñëw taxaw si xam ni ñun tam nu sommes les de Kayar fii lañ juddoo tey jii nii lu leen dal rek ñun la dal di wax nag euh, monsieur Matar gis naan étudiants yi yi nga moyoon kii daaw bëggoon nanoo ñëw sax mais xam nga ku rek léegi nee kontaan nañ ci yow trop trop trop vraiment moom yow ak monsieur le maire nee naan vraiment moom instant yi nii passé nañ daaw nga leen ko may passé nañ seen deuxième année instant yi ñi doon def inchub ak yeneen écoles yi ñoo lay remercier bu baax a baax di wax que monsieur le maire tamit am nañ étudiant am nañ men base de boo xamante ni ubbi nañ ko defar nañ ko dañuy recenser tous les étudiants yoo xamante ni euh, ñe ñoo ngi fi ñu ngi jàng ku nekk li ngay def ñii def pharmaceutique ñi ñi di def euh, physique chimie ay ñi def comptabilité gestion ñoom ñëpp pour maanaam tey ji li dem si wàllum entreprise yeeg yooyu yëpp ak comme ñii liñ bëgg nii sax am na ci koo xamante am na problème rek boo duggee si base de données wala liggéey noonu rek ni ko si gis ñu contacter ka directement mu mën leen koo fajal mu mën leen kaa fajal koo xamante am na leneen beneen solo tam ñu mën koo fajal am na beneen proposition bu ñu yokk nag parce que gis nañ maam tey ji si municipalité bi yëpp bëgg nañ tamit euh, ngeen ut benn cabinet boo xamante ni comme si entreprise la quoi loolu proposition la parce que àdduna léegi léppay dox te dañuy dem si faneen dañuy gis yëpp am na ñoo xamante ni pour entre pour entreprise yi bu ñuy ñëw pour bu jaar bu nu jaaree si yéen maa affaire bi day xaw a yomb mais bu ñu jaaree si cabinet yi yoo xamante ne ñoom ngay fay ñu wax ak ñëw wax la ni la ah fii de mën nga fay ñëw sama dëkk investir mais boo fi investir di nga jël sama lu mu bon bon euh, mille yoo xamante ne ay employé la si Kayar leen dëkk te ñooñu faaw ñu am benn contrat boo xamante ni euh, CDD la wala CDI faaw nga ñu jël leen en charge tamit ñoom ñëpp pour loolu noonu day gën a yembal. mais boo ñëwee xamante ni day jaar si Ibrahima Gueye directement ba jaar si municipalité mën naa am yoo xamante ni da si da jaarale suuf quoi te au moins étudiant bu jàngee dina xam yenn yoo xamante ni milieu professionnel yéen suy dugal bu baax a baax a baax di wax tamit étudiants yi euh, instant yi tool nii xam ku ne xam na ni jàng dafa met te Dakar dafa métti surtout maam boo soree see waajur am yoo xamante ni dafa métti trop te sunuy waajur lu nu lu nuy xalaat géej gi dañuy dem uti dépense ñëw man laa envoyé 200 yooyu noonu boo nu mënee boo nu mënee jàppale si lool bu baax a baax a baax a baax si baax a baax baax parce que tamit des fois dañ koy dañ koy soxla de trop soutien yi te boo boo mënee ñëw tamit xool situation étudiants yi tamit ni ñuy dundee foofu noonu ni ñuy dundee foofu noonu nga xool ko bu baax a baax loolu tamit euh, ñoon la koy waxaat pour nga gën si bàyyi si xel di wax daal si turu étudiants yi si turu ASEC bi yëpp kontaan nañ ci kontaan suñu partenaire Matar tamit di ñaan affaire yi moom yàlla na gën a yokk moom ba bu ëllëgee incha allah ñun lii ñu mën kaa defar sunuy doom wala ñu mën kaa defar suñuy rakk wala suñuy sët. voilà asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku ci nekk euh, turam ak santam di rafet rafetlu jataay bi euh, di kontaan ci maire euh, kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jubal ko ci jeunes yi. ak kaddu yi nga xam ne également collectif bi euh, travailleurs yi fële euh, euh, voilà l'APS 153 yëkkati nañ ko loolu nag bettu ma parce que man nekkoon naa fi comme Ibrahima l'a rappelé comme secrétaire municipal loolu bettu ma ku xam maire Aliou Ndoye xam ne c'est un homme engagé c'est un homme de défi man noonu laa ko fekkee fii moom looloo ma gis yi moom tamit moo tax man may ñëw ba léegi ndax moom lépp lu muy dugg su engagé wu engagé wu su engagé wul man foo mu teg tànkam sax bett na ma parce que dem na vraiment lii dafa dafa cadre en droite ligne avec mission yi nga xam ne moom la jox maire parce que moom boo xoolee ko dañ ne promouvoir le développement économique et social des populations kon nag loolu moo xamante duma ci dellu vraiment dama koy gërëm di ko féliciter te di koy ñaan yàlla may ko li nga xam ne moo gën a kawee njortam jeunes yi étudiants yi li ma leen di wax mooy xam ngeen ne Michel Mbaye gis ngeen li mu développé ci affaire bourse xam nga heure heure tey jii actuellement maanaam problème employabilité moom la ñuy wax bu njëkk ba dañ daan wax le problème de l' adéquation entre la formation et l' emploi da nga daan jàng ba sonn ngay ñëw tu n'es pas opérationnel nest moo tax logique bi mu taj nii bourse yi boo gisee mu ñëw nii ñun bu njëkk ba amuñu ko mais pour xool pour mu am link li ngeen di jàng ngeen mën ko appliquer bu boobaa nag léegi doo leen fi ngeen di seet fi ngeen di orienté wu da wu ci loo xam ne jeexitalam di nga mën a am opération sànq kii wax na gestion des entreprises baax na am na ñoo xam man gis naa fi ay topographie baax na ñun mairie xam nañ am na yu bëri yu baax mais nag nit ki mooy ñëw xool choix bi nga xam ne moo gën a adopté wu ak li mu bëgg man nee na association ASEC bataille bu mu waroon def war na boole ci bataayam fexe ba xoolal tey bi euh, pour nga xam tey bi ban examen ngay def wala concours mais foo koy xam fee ngay dem war booru Castor nga gis benn ruq bu sew ñu dugal ko fa te président de la République ñëw ne équité sociale et territoriale affaire boobu nekk foofu dañ ko war a décentraliser moo tax Kayar dafa war a bataille pour yooyu am foofu yëpp man sama sama kii bi fexewoon naa ba xëcc ba ba gars yi envoyé ma tout les tous les agréments à l'époque ba mu fay def dama waxoon da nga koy affiché fii parce que man de ci lu ma xam démb rek maa ngi ko doon wax ak kenn nee naa sama expérience naa ko mettre au service des étudiants nee naa si at yi di ñëw je voudrais que chaque anne mu am au moins ñu dugg ENA mu am ñu dugg feneen chaque année man je vais mettre mon mon expérience au service des étudiants di jàppale pour que ñuy réussir concours parce que problème bataay boobu mooy tax suba comme suba Kayar ñu gis ay ministrable ay kii loolu moom conseil boobu laa leen di jox ah li ci topp nag moom maa ngi koy jubal ci travailleurs yi travailleurs yi bon configuration seen usine xaw ma ko mais normalement code du travail la loi 97 17 boo ko rédigé wax na ci boppam nu muy amee mi ngi gars yi di syndic délégué de personnel yëpp ñu ngi lay di foog ngeen xool loolu lu ñu ci xam nag Ibrahima dinañ ko wax mais foog moom interlocuteur parce que maire ñu ngi wax na dëgg man bi mu fi nekk si coy indigal fii ñu ngi carte de pêche chaque fête du travail dañ ma doon yónni ñoom ñoo ma doon yónni man maa demoon foofu di leen déglu te ñoom it aussi daanu ñoon gëj boo gisee ma ne bett ma maanaam ñoom foofu lañu teg seen tànk ñoom nee nañu commune Kayar doo fi ñëw def loo neex même jaase ba muy gaaj dafa ne ñun notre souci mooy la protection du personnel parce que ay personnel lu lu ñu am fii lañ koy bay kon nag ñoom moo tax ma ne benn moo tax ma a gas monsieur le maire fu mu teg tànkam foofu la te incha allah je sais que lii moom ce n'est que la partie visible mais di ngeen xam après di ñëw di ñëw bu soobee yàlla man sama wax du mën a bëri parce que li ma war a wax yëpp wax na ko mais man côté bi mu taxoon ma jël parole mooy di leen ñaax seen bopp ngeen nekk ay responsable déposer le problème là il faut le poser chaque fois le maire a toujours c'est toujours euh, déployé pour nous assurer d'ailleurs c'est le problème c'est chaque fois man l'a fait fi on l'a fait quand. nit maintenant comme nous travaillons, vous def bu ngeen nous, a ñëw leen fii ngeen gis ko parce que Ibrahim, wax na ne man li compétence de maire yëpp dañoo ragal étudiants yi xam nga ñu ragal mooy boo leen commencé lay jox benn yàqu nga bos dootoo ko bay dootoo ko bay parce que te pourtant c'est pas légal état moo yor affaire université def conseil départemental moo yor lycée primaire élémentaire yi loolu la maire yore mais kooku nag ça c'est les tares de la décentralisation parce que waroon nañu xam ne le maire étudiant mais ci biir administré bi dafa am étudiant mënul seetaan administré bi dem fële

étudiants yi ñëwee rek nga ne la foofu ñu dem loolu aussi bokkoon na ci donc vraiment maa ngi leen di ñaan yéen étudiants yi euh, su ngeen amee daal dee leen jege maire tuuti parce que c'est un enseignant c'est un enseignant man mii di wax ak yéen enseignant la donc fu mu bëgg a yóbbu Kayar man xam naa ko mais il faut que yéen ngeen jàpp ci am na fii aussi mbay aussi wax na ko mooy le service là que les étudiants peuvent apporter à la à la collectivité mais wax na dëgg yow étudiant nga vacances day jot maire d'accord def na mais nag yow qu'est-ce que tu peux faire pour ta collectivité pour ta pour ton territoire ndax da ngay def ay action c'est ça ndax da ngay def ay am na yoo xam ne ay am na ay action yoo xam ne war ngeen ko mën a def pour jàppale communauté bi parce que loolu aussi dafay moom mooy légitimer suba seen i seen i activité même bu ko maire bëggoon gis dañ ko ne non étudiants yi ñoom tabaar fakal la comme tey jii nu mu demee également avec les travailleurs donc ñun ñëpp nañ ci jàpp ku ci nekk ci secteur bu mu nekk dugal ci loxo man pour ce qui me concerne du dara si je suis en train de travailler pour voir yooyu le concours di am te may gis boy muy ENAM ak muy kii yoyep xamna nu muy demee xamna nu muy man ministère direction yep dem ko direction formation collecteur yep yëpp def naa ko je sais nu muy donc dina jéem xol même s'il faut faire intervenir d'autres gars ici je vais les faire intervenir chacun selon la spécialité qui le qui le concerne ñu ñoo jàpp si ba nga xam ne au moins ñu mën a am ay éléments yoo xam ne suba qui feront notre fierté donc je vous remercie monsieur le maire. jéggul aussi yéen a ngi ci ay xat-xat ak jafe-jafe léeg xam comme li ma expliqué toujours président du sanu coobare ndax euh, léeg-léeg xam nga comme li ma wax rek euh, du question Kayar amul xaalis compte Kayar am na xaalis mais léeg-léeg logiciel bi nu gaa indil muy Gefilog mooy gàllankoor ba li ñu voté woon daal sax lu ci bëree bëri dañ ko mujj delluwaat ci keesu commune parce que ñu kaa génne. ndax ay xat-xat ak jafe-jafe xam logiciel bi ki ka ki ka ki ka yoon maîtriser wuñ ko waaye trésor ya koy yor sax maîtriser wuñ ko donc mu am xat-xat pour def engagement pour mën a génne xaalis li ñu doon def ren nag aussi lu ci bare bëri Ibrahima a ngi nii dañuy génne foraatu fee dara foraatu fee dara dajale sanum koom pour mën leen a fayal ba yàlla dimbali nañu ak seen yenn partenaires yi ñu jàppale ban fay leen seen seen logement yëpp comme li ngeen wax aussi ren jii jël nañ benn euh, benn appartement pour waa Bambey yi donc aussi yaakaar naa ne Saint-Louis aussi on va bu jéem fexe nu mu amee appartement beneen promesse bi aussi mooy na leen seet si ndax nit ki boo amee njaboot fenn fu ne da ngaa war a déplacer foofu nga dem seeti leen nan dem Ziguinchor nan ñëw Dakar nan dem Bambey nan dem Saint-Louis parce que Saint-Louis defoon nañ fa visite mais leen daal bëgg nañu wër kenn fu nekk fu ñu dem fa comme ni ko defoon benn at dem saint balaa koor gi ñëw su fekkee mën naa nekk bu ñu dem yóbbu suukar koor jàppale leen ci xat-xat yooyu nga ak jafe-jafe loolu saa ñu ko programmé jéem a fexe nu ñu ko organisé pour mën a man faa dem donc daal am na loo xam ne aussi déjà mën nañ ko wax fii am na lu ñuy xaar su ñëwee dañ fexe fexe balaa koor gi ñëw fenn ñu ñu jox leen loo xam ne aussi dañ leen jàppale ci dund comme yéen yi defal seen bopp yenn yi leen fexe nu leen a jàppale ci loolu leen xamante ñun li ñuy def état permettre ko mais sëñu ñu kaa bañ def ndax seen i seen njaboot ñoo fa nekk ndax enseignement supérieur de compétence transfert loolu xam nan ko mais ak njaboot moom boo leen njabootee li nuy wax rek ñëpp ci lañ bokk kon nag kenn ku ne lu ci àq ak yelleefam nañ fexe ba génne ko parce que réunion bi mu mujjee daje au conseil benn maire mi ngi ni man ma ah dama bëgg a tabaxal lycée lank ma dem ñu bañ ma dama bëgg a def lii ma dem sama étudiant mënu ma defal lii parce que su ma dem ñu kalma ma ne ko dafa am pexe yoo xam fa ngay jaar rek boo fa jaaree di nga mën a def ba li nga bëgg a def nga def yoon permettre ko nag waaye nag am na loo xam ne nii kenn ku ne yaay xam nooy tey sa bopp ji nax ba li nga bëgg nga mën kaa defal sax njaboot nga defal leen ko te aussi loolu yàlla dimbali leen ba wax dëgg yàlla booba tey ñu ci góorgóorlu ndax yaakaar naa benn appartement lañ fekkoon mooy bi nekkoon Dakar mais tey ji yokk nañ ci ñetti appartement bi nekk Ziguinchor bi nekk Ziguinchor ñoo ko jël bi nekk Bambey ñoo ko jël bi nekk fii aussi bi ñu yokkaat Dakar aussi bi ñëwee leen ko yokkaat mu ñetti appartement yu ñu ci yokkaat bourse yi yaakaar naa booy seet ñi nga xam ne aussi ñoo nekkoon ci premier tranche boobu muy wax noonu ci waa unité euh, université Mactaan boobu yaakaar naa ñooñu ci bari bi ñu ci ay troisième année ak yooyu am na ñoo xam si yaakaar pare na seen troisième année defoon na leen 50 bourse ren ji indiwaat na 50 bourse daaw sax kii nee na na 50 parce que am na yeneen ñu toppaat ci ginnaaw jëlaat ñu jox leen amna na 50 bourses yu ñuy joxe ak 30 yoo xam ay formation lay doon formation yoo xam de courte durée 3 mois lay doon nga dem loger Thiès yaa xam da ngaa bëgg a def pâtisserie wala da ngaa bëgg a def restauration wala da ngaa bëgg a def leneen ak leneen ay jàng mu ndaw lay doon 3 mois nga def sa examen at mi ñu joxe sa diplôme boo ñëwee mën a insérer parce que am secteur yoo xam ni comme li kii doon wax sànq avec du pétrole et du gaz il faut ñu ba am ay restauration xam sa am diplôme restauration parce que ala kuli al xayaar day ami hôtel te bu amee ay hôtel il faut ñu soxla ay restauration te boobaa aussi kenn du jël ci hôtel koo xam ne amoo diplôme d'état amul parce que des diplôme lañ lay jëlee mais damaa mën a togg ceebu jën rek damay dem ci hôtel ba ñu jël déedéet amul dañ la ana sa nga def pâtisserie nga dem ñu jël la wala leneen ak leneen bu defee ñooñu su fekkee am nañ seen formation ba toog yoo seen diplôme mën nañoo constitué wu nekk benn GIE yi nga xam ne bu appel d'offre amee bu ñëwee balaa ki installé hôtel bi kenn dana ah bi fi nekkat ñoom ci dañuy yëngatu yëpp nañ leen jël mais su fekkee amul aussi mënoo forcer nit ki mu def loo xam ne mu jël koo xam ne aussi mënul dara il faut ñu bàyyi ko mu dem jëli ko feneen dañu dem jëli ko feneen keneen nag di ko andi muy liggéey kaar du leen gënal du du loolu neex donc reste euh, yooyu métiers yooyu il faut que ñu fexe xale yi du ci dugg dugg aussi ci les métiers du pétrole et du gaz y en a plus de 500 juróomi téeméeri métier mi ngi ci lu ko wër restauration yi ma ak yeneen ak yeneen parce que c'est ay métiers ak connexe la yoo xam ne ni day day day andi ay ay ay link par rapport ak pétrole bi exploité waaw donc loolu yëpp nag il faut que ñu xalaat ci moo gën ñu dem a dem ba commencé exploiter gaz bi ñu war a soxla ay nit ñu monsieur le maire on on voulait telle et telle et telle personne ñu wër gëstu duñ ko mën a am. il faut que ñu dugg ci filière yooyu avec Matar mu orienté luñ ci Coulibaly aussi jàpp ci liggéey parce que aussi moom tam am na expérience comme ni mu ko waxee ñu fexe fexe ba aussi ñu leen orienté parce que aussi am na fa boo fa tolloo il faut ñu xelal la ki la ëpp xam-xam jiit la ci l' expérience moom mi ngi fi mi sunu mbokk la seen lépp fi la liggéey ba fi la retraité fi la nekk donc aussi loolu il faut léeg ngeen dem ci ñoo mel noonu ñu xool ah filière bii la baax na parce que c'est une filière porteur boo ci duggee boo génne automatiquement da ngay liggéey mais ñu baree bari da ngay dem jël loo xam ne nii la ciy sobe kenn xamul nu mu toll boo ci duggaatee boo ñëwee si da ngay yokk range mori rek mais nit ki da ngay def loo xam ne nii boo paree kenn ku ne da nga war a xalaat ni man kat dama bëgg sama liggéey sama formation jeexee ma dem parce que fi ne nii fa formation emploi foofu lan toll léegi donc loolu aussi ñi nga xam ne aussi yéen a war a jël bourse yi xalaat leen ci baax réfléchir ci baax parce que ñenn ñi ci bari ñu ngi nii toog mais ay soutien de famille lañu comme ni ko président waxee léegi am na ñoo xam seen i parents seen loxo jotu seen ginnaaw da ngeen a war a taxaw pour mën leen remplacer taxaw seen place taxaw seen place nag boo bëggee jàng ay juróomi at juróom benn at sa papa aussi di gën a amul di gën a màgget di gën a néew doon ak sa yaay yaakaar na nga leen di gën a soral mais dimbali wala leen dimbali mooy nga def formation bu gàtt pare am sa liggéey mën a taxaw dimbal sa njaboot say say waajur te loolu ni moom la leen orienté te loolu leen bëgg ngeen dugg bu ko defee ngeen dimbali waajur parce que waajur yi sonn nañu te nag dimbali sa waajur jàmm yàlla mais toog a toog a toog a toog bay liggéey fekk papa ak sa yaay jóge nañ fi yaakaar naa lool kenn ñaan ko yàlla kon nag fexe leen du ngeen mën a duggee ci lu formation yu jàppandi yu yéwén yu gaaw yoo xam ngeen pare rek liggéey mën a taxaw ngeen liggéey dimbali seen waajur yi sant nañ la presse gërëm nañ leen sant si sanu ma mata di ko remercier encore une fois de plus di leen wax ni contrat bi signé nañ ko l'essentiel fi mu toll nii mën ngeen a taxaw kenn ku ne ba président am na moom Matar am nañ ay coordonnées ngeen jaar si président ngeen doxal affaire bi mais nag bu leen ci def benn benn benn benn jafe-jafe comme bi ci amoon daaw parce que nit ki moom bu fekkee aussi amul par cotisation pour euh, kii bi aussi appartement bi wala cotisation pour kii bi aussi association bi bu leen leen kare ku ci amul cotisation ñëw leen ci monsieur le maire ni nga kii kat bëgg na ci monsieur amul cotisation man naa ko joxal cotisation ku ci am problème inscription tamit wala vous bu ngay ñëwee vous ci mën a jàpp ci parce que njaboot ngeen yéen leen fi nekkal yéen liggéeyal. di abonné ci suñu chaîne bés notification bi ngir am bépp vidéo boo ni dugal nañ ko. KR24 vidéo yu am solo def.